da ko moñ ma moñ ba mu ëpp te toujours lu mu wax mooy Omar j'ai géré mm-hmm. fi ma géré ba tey musuma am rapport bu ma épinglé mais sauf xew c'est c'est une accusation très grave waaw moo tax dama ne loolu laa wax xam nga démb wax naa ko ci benn émission ma ne mënuma mm-hmm, mm-hmm. d'accord Macky taxaw ne Amadou Ba du nit ku baax ak ñu mu àndal xeex ñi ci élection présidentielle bi ñi taxawaat tuuti Karim Wade il a a dit ça woon nit ñi bu leen jàppale Amadou Ba ci suuf ah ci suuf ci suuf comprendre woon nit ñi PDS euh, <laughs> taxaw woon ñu ne Amadou Ba dafa corrompre des juges constitutionnels comprendre nga ba tax ñi repousser élection am am am ay bakkan yu si dëkk bi nekk ci état tey ñu ñëwaat xëyaat élection législative ñu ne ñoom dañoo bëgg ànd ak ñun dans le cadre de l' intercoalition ça veut dire que ils ont eu la réponse mooy lan lu ñu doon jiiñ Amadou Ba amut Ousmane Sonko tamit musuma mënumaa d' accord. Mhm. mu ne Amadou Ba da doon sàcc ma ne ko am tegal. Amadou dafa jël xaalis te chaque jour ñetti fan nga tegle di yónni Pape Alé Niang ci Amadou Ba. lu ñuy doyee Amadou Ba nuñ koy laajee xalaatam bu nekkee sàcc la. du mm-hmm. parce que aussi tamit kañ la. lu may wax ci télé Pape Alé Niang ñëw na fa ñetti yoon deux fois yi mënul gis Amadou Ba dernière fois bi la ko Amadou Ba euh, yërëm recevoir ko Pape Alé Niang mu ngi may dégg ci télé laay waxee. loolu kañ la. yàggut am na boo xamante ne avant même ñi ñuy dem ci dialogue dialogue dialogue bi ils ont tout fait di yónni ay nit di yónni ay misère damaa jàpp ne nit bu nekkee sàcc la bu nekkee da ngeen ko tuumaal tontuwu leen amu leen ñëw bëgg a ànd ak moom ngeen bàyyi ko mu toog tranquille côté beneen bi aussi mooy les fausses accusations j'ai entendu tout à l'heure le DG de Dakar Demdik. billet d'avion ont des billet d'avion 35 millions mais fen il faut harmonie parce que billet d'avion direction ministère non non non non non billet d'avion ñu 30 d'avion 35 millions mais non non non. non, non, boo nga xam ne daf leen jàngal fen di leen yónni pour ñu fen mais bu ñu fen nañu xool nu ñuy fenee fen bi harmoniser ko mm. parce lan loolu yëpp parce que lan fen nañu ba réew mi léegi ñu ngi fi pour jëlaat majorité à l' assemblée nationale. Mm-hmm. est ce que jotul aussi tamit sénégalais yi yeewu. xam nañu nekk xam nañu nekk dama ne. man <laughs> na waxoon ne <laughs> dama ne man. dama ne yow jàppoon nañ la fi sax. man amul problème pamte pamte nañ man pamte pamte lu leen neex nañ def. Eh. mais mais je suis prêt je me suis préparé. Eh. mais moom defe naa jour defar naa sama saak comme Bougane mais dëkk bi <laughs> dama fee juddu yaroo fi màggee fi eh. jàngee fi tekkee fi am fi ay bàjjan am fi ay am fi ay ay. ay de. te musuma def lu <laughs> a fu a donc ragal. très bien pour man dans le cadre des élections législatives. Mhm. dañoo war a utiliser ay armes conventionnelles. mais est-ce que vous pensez que lu Ousmane Sonko wax lépp ci Amadou Ba euh, votre tête de liste am chance ci législative yi. dama dama notre tête de liste am chance bu raw à que ci campagne bi mu apporter euh, des. il apportera mais les Sénégalais ba mais il apportera des répliques. oui mais kenn du ko xaar ci débat boobu moom Ousmane Sonko di ko woo Amadou Ba. Mhm. parce que Amadou Ba dafa jàpp ne Ousmane Sonko musul génne kayit boo xam dañ ko épinglé wala rapport da koo jàpp. Mhm. donc Amadou Ba n'a pas ce temps là. maintenant ñoom Amadou Ba xam lu muy xaar xam lu muy xaar pour tontu leen d' abord. Mhm. mu xaar lënd ñoom ñu génnee seen référentiel bi wax ne fii lañ jël fii lañ fekk réew mi fii lañ ko bëgg a jëmee. c'est ça il va apporter des corrections économiques il va amener des débats. boo xamante ne tey lu Karim wax mooy débat yi dañoo sonn ci débat yi mm. Amadou Ba foofu la bëgg jëlee réew mi mooy lan des débats yoo xam ne day day doon des débats productifs et assemblée boo xam ne day doon assemblée bu mature mm. ay du ay golo ñooy yëg ci ay table du ay golo ñooy dem di téye ay kees di ko xëcc mm. il faut loolu la bëgg beneen bi aussi tamit ñun euh, jàmm ak njariñ dama dégg am na ñuy véhiculer ne bokkuñu dans l'intercoalition coalition bëri na coow non bëri na coow parce que makisal Sall bàyyeegul Amadou Ba ba tey. Hmm. mooy lan il utilise les armes non conventionnées pour xeex Amadou Ba xeex na ko pendant les présidentielles muy continuer waat di jënd ay nitam. Hmm. di di di def lu ko neex di def ay maguy. mais moom c'est quoi son problème ak Amadou Ba tamit. man a lijjanti de loolu la ñu war a lijjanti nag. loolu la ñu war a lijjanti de. son problème ak Ba dañoo jëm ci ay élections présidentielles. législatives législatives. Macky fi parti Macky Sall s'est rendu compte ñu mu fi bàyyi yëpp ay xusma ñàpp lañ. Si il bés élection s'il arrive premier il sera le chef de l'opposition c'est fini pour la paire. Hmm. donc Macky Sall joue ses dernières cartes enjeu politique très bien quel est l'acte que Macky Sall a posé Macky Sall a posé des actes. il a saboté notre notre coalition. Ah il a appelé des démissions à certains certains gens ont démissionné non je ne peux pas dama dama kii mais gis ngeen. taxaw tension waaw mais je suis sérieux da ngay da ngay wax boo waxee da ngay direct. waaw mais may ma non je ne citerai pas de ah, nom parce que par respect. Ah. il a fait saboter nos listes dans certaines zones comme par exemple à Mbour. Amadou Ba a demandé qu'on met le maire de Diass tête de liste. ki nga cadre le intellectuel le ku bax la moy Mamadou Dione. moom mu xëy ne di génne non xëyul de déedéet dañ koy yóbbu dañ koy yóbbu. suppléant suppléant troisième position. suppléant beneen bi man mi j'étais parmi les 10 premiers on m'a envoyé 27 e position pour lan pour tas Amour Ba par exemple dañoo yaakaar buñ ko défé dañ may mer attaquer Amour Ba tas coalition heureusement j'ai été intelligent

non déglu il a inf je t'ai dit tout à l'heure ah. Macky Sall nous a infiltré ah. li may wax dafa leer nañu ci télé lay waxé. Ah. Ñiko def xam nañ ko ni ko defee xam nañ ko c'est des problèmes internes on est en train de régler entre nous dans la coalition c'est ça dans la dans même pas la coalition dans la nouvelle responsabilité def xam nañ ko tout là pour nuire à Amadou Très bien. Mais, vous, vous avez quitté l'intersyndical. La on n'a pas quitté. On n'a pas quitté. Même, faut la DG, il faut le Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la DG Allez-y. Omar doo ko bàyyi ko continué non dama bëgg dama bëgg mu lancer parce que moom moo ñu war a wax. waaw dégg nga dinaa la expliquer. c'est ça moo war a la waaw mais je n'ai pas brûlé waaw mais fofu la jëm. waaw mais il faut que explication importante seen liste nationale Macky Sall moko bind wala Amadou Ba. non dama né Amadou Ba Amadou Ba dafa bàyyi liste nationale dem ci dans le cadre waxtan intercoalition ak les Khalifa Sall li may wax nii. dafa lay intercoalition waaw même mo ñëw. au niveau des départements. l'intercoalition c'est pas au niveau national. Omar may mo ma ñëw. Omar may mo ma ñëw. allez-y l'intercoalition. nous nous sommes d'accord pour ànd ak sàmm sa sa kaddu au niveau de Dakar au niveau de au niveau de mais nous étions pas d'accord pour andak makisal Macky Sall Ablaye problème parce que nous nous sommes. nous sommes, même a même dans l'Afrique centrale à certaines zones de l'Europe. mais bien sûr pourtant nous sommes là, on est parce que beaucoup nous Macky Sall mhm. parce que nous sommes notre séparation avec Macky Sall nous très bien mhm. il véhicule des informations que. sàmm euh, jàmm njëriñ bokkul ci intercoalition bi mais ñin ci intercoalition bi lañ bokk mais ak sàmm sa kaddu. la ànd waa ñoom la ñu àndal ci. loolu leer na c'est bon c'est bon à préciser alors euh, Karim ci ci liste. Euh, dañu waroon dem ñun. waaw ah. nekk ci benn liste ñun dañu bëggoon demal suñu bopp. waaw waaw dañu am dañu bëggoon teg. yéen yéen lan la woon. coalition citoyenne PAP. Ah. Ah. pouvoir au peuple. waaw mujjul mujjul antu. mais sabotage dañu saboté élection yi moo moo tax moo tax bokkuñu. naka la nekkee sabotage. Macky Sall. waaw ak loo ko mën a waxal. da nga man Macky Sall moom daa jaar gauche ma jaar droite. bien <laughs> bu bu élection mu sant ah, def day. en fait day ñu am consensus. ñu xam lu muy wax. Ah. dem leen bu la amee consensus. ngeen ñëw wax ma ngeen ñëw ma def li ngeen wax. su ngeen amul consensus laay soog a décider. cest à code électoral bi sax am na consensus. bien